candidat la déclaré na candidat la wóor na ko ni askan wi Ousmane Sonko lañu ñu àndal donc vraiment bu dee bëgg na jàmm daf koy may jàmm ba tax na le 15 incha allah sénégalais yi askan wi dina woon ne nanguwuñu kuy salfaañe ay droits ay liberté euh, collective et individuelle nanguwuñu également ku bëgg a euh, salfaañe ay droits Ousmane Sonko parce que kenn mënu ko tere participer à l'élection présidentielle 2024. Pape Sané manifestation contre li ñu jàpp que ni dañ ko salfaañee ci réew mi muy euh, droits et libertés yu nit ñi ak aussi Ousmane Sonko ñoom ñu jàpp que ni euh, dañ ko bëgg tere mu bañ a dem ci élection euh, présidentielle boobule sànq maa ngi koy wax ci côté violence yi surtout parce que boo xoolee manifestation 46 départements la ñu woote régime bi ci beneen wàll ga dégg nañ kàddu yi nga xam ne moom la ñuy yëkkati muy waa Benno Bokk Yaakaar déjà nan lañ mën a def pour dal am. pour que ñu dem ñoom manifester ji seen manifestation te dara du ci e, am ci mbir mi maanaam dara du ci yëngatu. non Issa Issa Issa nga may ma ma dellu si si benn laaj bi nga laaj laajte woon sànq. oui c'est même une affirmation ma d'accord ceeg yow que Mame Mbaye Niang libre na. 17 millions de Sénégalais wax ko lañ koy wax mu ne noo man Pape Sané rek laa ci porte plainte libre na euh, je l'ai dit une fois ici ma ne Ousmane Sonko c'est injusticiable il faut que aussi que les règles du jeu. moom mii di aspirer à diriger le Sénégal mu respecte ko mais c'est que dans cette affaire dafa am li nga xam ne mooy jur xaw a jur jiixi jaaxa balaa maa ñëw ci manifestation yi monsieur Dianté l'a di tantôt c'est-à-dire bu ñu jëlee euh, le le le la diffamation comme l'adultère ñu dugal ko dans la catégorie de des des, des délits privés bu ñu toogee ci loolu dégg ñu ne procureur ci boppam def na ci immixtion ba yokk ci ay charge xel day xaw a tey muy benn problème beneen problème bi mooy démb la sortie du garde des sceaux ministre de la justice il dit qu'il est il est nuancé waaw il est nuancé mais son propos ñun ñii di dégg li mu wax c'est bien rentré dans nos oreilles avant que Baye Omar di ko corriger maanaam il a di dit que son Sonko est coupable de diffamation il a diffamé kon nag jàpp ne condamné na ko ba pare waaw non moom il a déjà condamné cest à loolu déjà non pour man laa la wax man. pour man c'est ex c'est extrêmement grave léegi nag pour li dalal li dalal mbir mi lu dalal réew mi euh, euh, déjà ñi nga xam ne ñoo waroon dalal benn ngi noonu mooy Ismaïla Madior Fall war a mën a taxaw tenir un discours bi nga xam ne tous les acteurs tous les citoyens du Sénégal seront se retrouver autour de cette justice mais moom bu mënee taxaw di wax yenn wax yi. Euh, il il rend un mauvais service aux magistrats et Dieu sait que on a yàlla moo ko weer yàlla moo ko weer eh, d'excellents magistrats yàlla moo ko weer voilà parce que loolu mooy mbëbëtam voilà c'est ça on a d'excellents magistrats mais moom son propos tey di suul na pratiquement jëf yooyu parce que les gens ne voient pas ces magistrats ñoom ki ñuy gis mooy kii jiite ministère bi mooy benn ñaar euh, man je di encore une fois Isa on est en démocratie te démocratie boo ko déggee rek mooy c'est que mu bañ a am une la rupture du dialogue manifestation dans les quarante six départements c'est vrai c'est un droit wax naa ko campagne bu jotee on manifeste partout mais dans ce cas de figure man tey jii j'aurais souhaité tey tey j'aurais souhaité que le ministre de l'intérieur mm. ait la grandeur wooy waaye yeewi askan ne leen kaay leen gars li ngeen bëgg a def dans les quarante six départements je n'ai pas les hommes je parle pas des préfets mais man ministre de l'intérieur je n'ai pas les hommes. moom est-ce que gars loolu du nekk benn motif bu ñu leen di jox. 46 départements manifestation non non man j'aurais j'aurais compris non non xam nga ñoom. ils sont dans un problème de droit droit yoon moo leen ko may. Mm. mais je dis que aujourd'hui tey le ministre de au lieu de sortir avec ces déclarations intempestives de menaces et consorts mu woo leen ñi ñëw mu ne leen xam ngeen lan la 46 manifestations wax fa dëgg yàlla ça va être compliqué pour moi est-ce que du ñu dagg def 15 euh, fii euh, dans trois jours quinze def fële dans 3 c'est-à-dire il faut que ce dialogue-là pour la démocratie il faut que mu am c'est-à-dire le pouvoir-là ne peut pas s'arc-bouter mmh. sur ses avantages sur ses strapontins daal di ne que de lot côté daañu leen di teg la nga xam ne nekkul ci constitution Sénégal parce que ñoom li ñuy wax ni ci constitution Sénégal la nekk moo tax ñu xëy ñu ne dañuy manifester dans les quarante six départements parce que dans les quarante six départements c' est des sénégalais. am nañ ci droit donc moo tax ma ne la tey jii voilà encore une raison voilà une occasion pour le ministre de l' intérieur de renouer le fil du dialogue. fil du dialogue boobu. est-ce bu dee pour encadrer manifestation 46 dans les 46 départements ils ont le personnel qu'il faut pour encadrer les manifestants xanaa bu ñu bëggee def représailles bu ñu bëggee représailles mën nañu wax ne amuñu amuñu moyen mais ils te deuxièmement c'est des c'est des marches non c'est des marches c'est des marches dañuy dañuy informer préfet bi dañoo bëgg def marche lii mooy suñu itinéraire préfet mën na waxtaan ak ñoom ne leen changer leen itinéraire del jël leen itinéraire bii hmm. te ñu encadrer manifestation possible c' dans l'ordre normal c' est c' est dans dans dans dans dans les mm-hmm. donc bu ñu bëggee loolu am nañu mooy mais xam nga li ma bëgg a wax mooy. ñoom bi ñuy menacé naan dana am violence et cetera et parce que ce sont eux les acteurs de la violence. Ah bon? ce les acteurs de la te man li may wax dama ci am firnde. xam nga euh, le 16 passé bi ñu jógee tribunal j'étais dans le convoi de Ousmane Sonko maa ngi nekkoon ci convoi Ousmane Sonko. ay nit yoroon ci nekkoon ci ay L200 sans plaque d'immatriculation était en civil jël benn bandoo fi bind fi police c'est pas des policiers. Hmm. te ñoom ñoo doon sànni lacrymogène. jàppoon ne policier la ñoo non c'est pas des policiers policier en civil du sànni lacrymogène boo naree sànni lacrymogène da ngay sol tenue mais en civil ngay sànni lacrymogène ñoom ñoo yoroon lance lacrymogène yi lu tax. le commissaire avait demandé à ce que ñu extirper Ousmane Sonko de son véhicule dugal ko parce qu'il n'est pas en sécurité ana insécurité fu mu jógee ci ñun la ci ñun la insécurité yooyu jógee déedéet foofu la c'est-à-dire xam nga dëgg da nga koy wax benn yoon te dee bu amee insécurité ñu yaakaar ne la vie de Ousmane Sonko est en danger ki indi insécurité bi l'auteur de l'insécurité ak ñoo xam ne ñoom ñoo indi fitna bi ngay mettre or d'état de nuire bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi. léegi condition yi bu amee ñu bëgg suba encore ñu woo ko ñu woo ko tribunal eh, palais mu dem répondre te yooyu pas de sécurité bu muy jógee foofu ñibbi parce que keroog li ñu bëggoon mooy juge bi prononcé benn sentence juge bi mënu koo def parce que euh, barreau euh, kii euh, ordre des avocats nangu ko léegi ñu bëgg yóbbu xeex bi feneen beneen beneen beneen jox ko beneen dimension mm. comme y a pas de sécurité lu tax ñu koy convoqué waat Ah, ah. ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour assurer la sécurité Ousmane Sonko nga xam ne bu ma jógee sama kër mun naa dem tribunal jàkkaarloog juge bi ñibbi waat sama kër sans problème mais il déjà de l'insécurité et c'est ça un autre problème qu'il faut régler. waxuñu ko officiellement que ni y avait de ci non mais lu tax ñu toj lu tax ñu toj vers vitram parce que il voulait l'obliger à sortir parce qu'il considérait qu'il était plus en sécurité dans que dans son véhicule. Hmm. lan moo fi indi insécurité ñu wax sànq ci Ismaïla Madior Fall eh, Fall eh, yëkkati ñu jàpp que ni déjà dafa mel ni sax moom dafa imi maanaam eh, nar tëddee njaaxaanaay yoon ci dossier bi ndax bu fekkente ne yëkkati na kàddu yu ni mel day mel ni comme si condamné na ko ba noppi te il réclame procès boo xam ne c'est équitable à quelques années quelques mois de la présidentielle beneen bi mooy dañuy dénoncer vigoureusement cette énième dérive noonu lañ ko tuddee ñoom en tout cas euh, qui ne restera pas sans suite judiciaire mu dee kàddu yu collectif des avocats d'Ousmane Sonko ça gars yi foog ñu xam ne Sénégal du seen moomeel du seen ndono mm. Sénégal Sénégal lu ñëpp la ci lañu ñu bokk parce que en réalité procureur bi kan mooy njaatigam kuy topp Ousmane Sonko tey jii kan mooy njaatigam parce que léegi dootul mooy Mbaye Niang moom Mbaye Niang diffamation faux usage de ak yeneen euh, chef d'accusation euh, kan moo ko indi du procureur te mu nekk sous la tutelle de Ismaël Madior Fall kooku jóg di wax ne dafa compte moom il a déjà condamné Ousmane Sonko te juge bi waxagul il faudrait que les gens soient sérieux ñu war a wax xam nga nit ñi dañuy wax ne kenn rafetluwul nga jël euh, ay kaddu yu ñagas di ko teg doomi aadama waxatuma la ay